ملك الموت الذي وكل بكم كل من عليها فان كل شيء هالك إلا وجهه ñoo ngi leen di nuyu baax di leen ziar comme ni ñu ko baaxoo def at mu jot ci waxtu wi te ji tombeek 26 décembre ñi amel journée way dawlu muy bis bi nga xam ne dañ koy def ngir ñaanal way dawlu yi waaye itam di ci bàyyi xel ñi nga xam ne danoo jagadi ca dëgg nekk ci hôpital yi ñu war leen a ñu manqué deret ñu ngi leen yokk deret ñu boole ci nag dox de sang bi nga xam ne chaque année dañ ko baaxal di ko def di ko dimbali ak di ko jox suñ mbokk yi nga xam ne dañ ko yittiwoo ci nekk ci hôpital yi ndax ni ñuy taxawoo waaye waaye dem yi noonu lañuy taxawoo ñi nga xam ne ñoo fi dund ñooy dund ba bari nekk ci hôpital yi loolu mooy sababu ñu organiser bis bi di ko di ko di ko taxawu bis bi nag dañ ko dee def léegi léegi mu yàgg léegi mu at ay at waaye li ñu gis na dem gis na ne wax dëgg yàlla mi ngi avancé début bi am ci amoon nañ ci ay difficulté difficulté yi mooy nit ñi dana xool na ragal mayam deret parce que koo ko waxee day tiit doo xam lu mu doon waaye fi ñu nii rek ñu ngi koy bëgg xam di xam njariñ li ndax bokk na ci njariñ yi nga xam ne ñoo ngi ko ci gis nit ñi nga xam ñi nga xam ne ñoo koy def képp ko xam ne xam nañ sa groupe Sanning ba ba nga may der ba pare sa résultat bu jënd bu fekkee da nga am trace diabète baa nga am feebar baa nga am loo xam ne yaa ngi koy yëg sa yaram loo xam ne yow xamoo ko médecin yi dana avertir walla hôpital jëm laa taxaw euh, ñaareel bi itam suñ biir des fois yàlla dogal ñu am ci koo xam ne dafay feebar te du hôpital war a soxla deret fekk ñun am na résultat yi fii ci suñu base dañuy xool rek liste bi xool ñi nga xam ne ñu am ñoo bokk moom groupe Sanding ñu woo leen téléphone automatiquement communiqué leen ñëw directement ci hôpital bi yokk même may kooku deret mën ko loolu bokk na ci li xam ne ndimbal loo xam ni ñu ngi ko ci ñu ngi ko ci def euh, boobu léegi nag ñu ngi ko def waaye mu ngi avancé ndax xay na nit ñi néew noonu waaye léegi daanaka dañuy dem ba ay cent ay quelques postes yoo xam ne ñu ngi ko ci ñu ngi ko ci amal euh, loolu mooy li nga xam ne moom moom lañ gis ci li nga xam ne mooy doon sang bi bés bi nag ñoo ngi ciy àndal waa hôpitalu say Fawzayni muy ñoo xam ne daanaka at mu jot dañ leen di contacter dem fa waxtaan ñoom avant bis bi delluwaat fa fàttali leen ko waaye wax dëgg yàlla ñu ngi taxaw taxawaay bu am solo ñu ngi jàppale bu baax a baax nag ndax mosuñoo taar bis bi ci tamit li ci war lépp itam ñu ngi ko ci def ñoom tam ñoo ngi leen amal cant bu baax a baax a baax ñoo ngi gàttan foofu kàddu yi.